mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak foo nekk foo ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa def ba pare siyaar ba pare ndax ku ne xam ne da nga demoon umra di ñaan li nga fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu def ko ci askanu senegal yëpp ak àdduna bi yëpp tey jii sa rak saa Thiès jël doom tuddee la yëg-yëg la bal la maa ngi sant bu baax julli sant solo sant sama ñaari rajo sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Ba di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram te tànn ci barkeem ñaan si mu taxaw mu yàgg bi loolu tëwër ñaan njabootu maam Cheikh Rafa mu yàgg bi loolu tëwër murit xaajir laayeen ñaseen képp ku fay xalifa rek yàlla na suñu borom yàggal di ñaan Sénégal jàmm di ñaan di wax alhamdulilah rabbil alamin tey ñu bëgg a xam seen diggante ak Sa Thiès ndax xam na ni sax li ngeen bokk waaye doom daa sax ci xol koo tuddee rek am na yëg-yëg bu nekk say digganteeg moom say digganteeg Sa Thiès. waaw raq la rek wax dëgg yàlla raq boo xamante ne la nga bokk nit ndey baay mu nekk suma xarit yàlla boole ñu eh, wax dëgg yàlla nag mu nekk nit baax nekk nit koo xam ne nag vraiment mu nekk ci xolam rek lay dégager bu yàlla dogalee mu jël doomam te doom nu mu saxee si biir xol waajuram mu tuddee la ko. kooku nekk na lu lu loo xamante ne ku la yëg am foo xamante ne toll na la fa wane ne daal am na fu ma toll moo tax mu jël doomam tuddee ma ko maa ngi ñaan yàlla xale bi yàlla na dund ba am ndaay ak baayam yàlla na sut papaam yàlla na sut turandoom ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ koy ñaanam mu gudd fan di ko wax na ko dëgg yàlla kontaan naa ko kontaan naa ci moom sant naa ko gërëm naa ko ndax lim ma defal dara mun ko rëy rëy mun tawee si lu rëy la ci man nag mbégte la boo xamante ne xam naa fu mu tàmbale rek mais xamu fu mu àgg. mais naka aj gi. alhamdulilah waaw alhamdulilah aj nañ ñëw ah dañ doon ah, mottali rek suñu diine waaye alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax a baax waaw ah, macha allah. mu mel na ñaa ngi commencé naan nangu ndax dem nga ba ñëw sa rak tuddee doom dafa mel ne kon li nga ñaan yaa ngi koy commencé gis. waaw boobu barab boobu loo fa ñeent doo gis Ahmed Fadal ndax euh, barabu sang-sang yi da nga ci ci barabu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga ñaan fa sa ñaan fa sénégalais yi lii rek wane na ko donc nga ñaan yéen ñëpp jàmm ñaanal ñëpp tey nga ñëw même pas une semaine doom. kon kenn ñëpp xam nañ ne kenn du rasulullah sallallahu alayhi waaw kon donc yàlla na yàlla guddal fan yi defal ñëpp jàmm. tey daal mbégte la daal. waaw mbégte la tey dàq doom neex na waaye turandoo ko dàq. waaw waaw turandoo moom mooy lépp te turandoo lu neex la lu sax la si biir xol te ku jël doom tuddee la ko yow sax daanaka du la ko gën a bëgg donc waaw loolu la affaire bi. yàlla rek àdduna noonu la loolu rafet la Salif bu tuddee Omar euh, doom lu rafet la. ndax Omar mooy magam tey jii Omar mooy papaam mooy léppam kon yàlla na yàlla def jàmm rek ba xale bi dund am ndey ak baay ba yàlla defal leen sutura bi jaay rasulullah alayhi salaam rafet na trop. Balla bi ma ñaat turando. ah bi ma ñaat turando. ah turando yi moom sa dëgg yàlla bëri na. macha allah mais amaana bii nga xamante ne jege na ma ñu bokk benn deret maa ngi koy dog a am waaye turando am naa ko lu bëree bëri macha allah waaye trondo yëpp a yem. ci man ndax ku jël doom tuddee la ko rek daanaka mënoo ko fay vraiment kontaan naa trop. jërëjëf jërëjëf Fadel ba lekk nga laax. <laughs>